personnes. ñu ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides mu yàgg fi te wér. di ñaanal sama sëriñ di waral ma taxaw fii tey di wax sëriñ Sidi Abdoul Ahad mu yàgg fi lool te wér moom njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp. maa ngi nii nag kilifa yi fi ku nekk ci sa tur ak sa sant. di jël nuyoo bi di ko loxol sama sëriñ sëriñ Mahamadan moom sëriñ Abdul Ahad mu joxal ma ko mboolem njaboot ak sëriñ Tuubaa gi di teew tegal ma ko ci loxol sëriñ Bachir Mbacke Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu sëriñ Mountakha xalifa général des mourides waaye mu joxal ma ko Serigne Abibou Mbacke di Serigne Fallou Mbacke ma di ko nuyu bu baax a baax di ko sargal di sama di nuyu Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacke di Serigne Abdoul di nuyu Serigne Abdoul Ahad di nuyu Serigne Cheikh Bara Lahad Mbacke sama xarit bu yàgg boo xam ma mas ma nga ca fuy moo seen seen ko fa démb ba tey jii di nuyu Serigne Cheikh Abdoul Ad Latif Mbacké di nuyu Serigne Djili mi xam ne mooy rakam di nuyu Serigne Fall Mbacké Baara Foroja ak waa kër Serigne Saama Serigne Baara Foroja gépp Koso Mbacké bu Serigne Mountakha mi ne sama wëllëre la te yàgg fi lool boobu ba nëgg ni mi ngi fi di nuyu Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Mahmadan mi nga xam ne conseiller ci conseil municipal bi di nuyu Serigne Sidi Mbacke Serigne Cheikhouna Mbacke ak njabootu Serigne Abdoulaye di fi nekk yëpp di nuyu njabootu Serigne Sidi Abdoul Ahad di nekk ci kaw yëpp tey samay Serigne nga xam ne depuis trois heures ba léegi ñu ngi fi. di ci ràññee di ci jox Serigne Sall siiti rek mu jox ko mbooleem njabootu Serigne Abdoul di góor ak jigéen mag ak di nuyu Serigne Sall bu jaxate bu soxna may bu Serigne Abdoul ak rakkam ji mu àndal Serigne Abo ak Serigne Cheikhouna ak mbooleem njabootu Serigne Abdoul Ahad ji bi teew di nuyu mu Serigne Abibou wax naa ko di nuyu Murtada Mbacké mu sëriñ Abdou Fatah Fallilu di ko jox nuyoo bu sell mu joxal ma ko waajuram sëriñ Abibu Mbàkke mu joxal ma ko mbooleem waa Touba Ca yi fi nekk te ñu mobilisé wu mobilisé ànd ànd bu toll nii di mbooloo mu bëree bëri ñëw teew fi di nuyu képp koo xam ne kilifa nga bu nekk ci kaw tànt bi muy góor muy jigéen muy mag ndaw waaye di nuyu sama sëriñ sëriñ Cheikh Sall mi nga xam ne ku nekk gis na sama diggante ak moom ku nekk xam na ne doomoo na ma def na ma taalibe def na ma wàjju def naa ko wàjju def na ma doom doomoo na ma ak njabootam ñoom ñépp ñu ngi fi teew su ma ci tuddee sëriñ Murtada tuddi soxna maam say ñu joxal ma ko nuyoo waa kër sëriñ Souhaïbou bi yëpp di nuyu mbooleen njabootu Serigne Touba ji fi teew di nuyu Serigne Khadim Mbacke Aliou mi nga xam ne mi ngi fi teew ak waa Daaru Xudoos yëpp di nuyu li tàmbalee ci kër Serigne Modou ba ci kër Serigne Mourtada képp koo xam ñi ngi kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu di sakku ci yow ñaan di la ñaanal yàlla bu del saw fante wéree say ndax mënuma leen a fay muy góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem association yi fi teew damay njëkkee waa Madiana yi nga xam ne ci la taalib yi war a tàmbalee jëm saam ak sëñ Abdou jëm saam ak sëñ Bara Faraja jëm saam Jaxate jëm Buqatul Mubarak ak mboolem quartier yi nga xam ne waar bi dana ko traversé te ñoom ñëpp ñu mobilisé wu góor ak jigéen mag ak ndaw ñëw fii di nuyu Serigne Saliou Dieng mi nga xam ne kere bi ko bëri ci démb rek lañ ko wax jëlee ndigal ci Serigne bi wax leen ko kenn ku ci nekk nelawatoo toogatoo ba yëf yi mel nii kay muy mbooleem chef de village yi nga xam ne ñoom la di nuyu waa Saam di nuyu waa Bukatul Mubarak di nuyu waa Saam Sëñ Baara Faraja Saam Sëñ Abdul Latif Madiyana ñoom ñëpp ak waa Jannatul Mawa lenn ci ñoom ñu ngi fi. Sëriñ Basiru yàlla mi dogal moo dogal ñu jox ma sëriñ bi yëkkati ma sëriñ Sidi Abdul Ahad di sëriñ Sidi Moxtaar Mbakke yàlla na yàlla dolli leeram. yëkkatee dëkk bi teg ko ci loxol Serigne Sidi Mbacke Abdou Lahad ne ko dama bëgg nga jàpp li téel ma dëkk bi Serigne bi wax ma ci wax ju doy waar ne ma ah Serigne Sidi Maxtaar mi ngi liggéey Serigne Touba bi dafa tegu ci kawam mu yëkkati liggéey bi teg ko ci sama loxo te man de bugguma cee jox ko ko bugguma cee yàq bugguma cee yàqale bugguma cee du ma ko jox ku koy foye du ma ko jox ku koy yàq dama koy jox koo xam ne du ma ci am ak jam-jam mukk ci àdduna te man de natt naa yaakaar naa ne seet yaa ngi ko yor du ma ci am ab jam-jam njaboot ak Serigne Abdou Lahad du ci am jam-jam te njaboot ak Serigne Abdou Lahad mooy njaboot ak Serigne Souhaïbou mooy njaboot ak Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu kon su fekkee ne yàlla na ñu nekk ci ci diggante Serigne Modou Moustapha ba Serigne Mourtala ak mbooleem seex koo xam ne ci yoonu murid nga nekk nga jël ñu jël ay ndaw kenn kër gu nekk jël ndaw seex bu nekk jël ndaw kër gu nekk ñu def ko loolu mooy composé commune ngeen boole ma ak fukki së sëti Serigne Touba ak juróom-ñeent ma nekk ak ñoom ci conseil municipal bi te Serigne Sidi Abdou Aziz nekk ci bopp bi ànd ko ak man dama ne woon mbiram Serigne Sidi Abdou Aziz sama diggante moom dootuma ci wax ndax li Serigne Abdoulaye waxoon ko amee bët akam xel xam ne sama diggante moom te ko amul ci bët jarul wax ma nga nee kon sama diggante Serigne Sidi Abdou Aziz ku nekk xam na ko ñu ànd ak conseil municipal bi. juróom ñaar mandat bee ba mu jeex ñu ànd mandat bii ba mu jeex ba mu toll fii tey suñu taxawee liggéey liggéey bu toll ni bii ñu liggéey ci dëkk bi waxuma ne def nañ fi lépp waaye lépp luñ mën a am wut nañ ko lépp lu mën a def def nañ ko ci kon bu ñu taxawee fii tey Serigne Bassirou nga teewal fi Serigne Mountakha dinañu la leeral tuuti ci li nga ne mooy li nga li ñu ci liggéey bi gannaaw bu ñu santee ñëpp waaye di la xamal ne kenn mënul dara lu rafet ci liggéey bi jàmbaar yooyu ñu ma boole ak ndaw yu tedd yooyu nga xam ne ay kilifa leen yebal ñu taxaw ñu ñëw ànd ak man juróom-ñaari at ba nekk fii yàlla dimbale musuñu ñoo lijjanti musuñoo yenu at safaan wala coow ne nañ dem Cheikh Bass li jënti ko saa bu ñëwee li nga xalaat nga wax nga ko suñ demee tër ko suñ borom baaxe ñu ñu am ci mu ñëpp déggoo ci ñu andi ci loola loolu nag boo amee faw ma sant conseil municipal bi waaye ma seeree la ko yow mi nga xam ne yow lañ teg ci suñ kanam ngay suñu jawriñ da ci ci ci liggéey bi ci te nga yor kàddu sëriñ bi ma di leen xamal ne rek li li des li li ñu waral ñu taw fii tey mooy ci biir liggéey bi xam naa ne gouverneur de la région de Diourbel dana ci ñëw mooy dafa am liggéey boo xam ne Sénégal dañ koo séddale juróom ay pacc pàcc pàcc muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu teg ay sart ak i loi ak i décret ci réew mi wax ne commune bu dee commune nii lay doxee ñi nekk ci commune ba nii lañ war a doxee tënk ko ci dox ay procédure yoo xam ne administration ñoo koy seere di ñu contrôler bu président de la république monsieur Macky Sall mi xam ne yàlla dogal na ko am xam-xam la ci réew waaye ku bëgg liggéey la waaye ku bëgg réew mi la waaye ku xam ni développement ci réew mi di ko am yéene ci Touba dëkk bii ñu nekk tey teg ay critères boole ci Touba ñu dugal ñu ci ci commune yi nga xam ne war nañu ndax dañoo jël fukki commune ak juróom muy fukki régions yi ak juróom dañoo jël fukki communes yi ak juróom jël ñeenti communes yi nga xam ne duñu ay régions waaye communes yu mag lañ te Touba bokk ci Pikine bokk ci Tivaouane muy fukki commune ak juróom-ñeent la ñuy jël boole leen. ne leen danañ leen président de la république mi nga xam ne ku mën a liggéey fongola mi mel ne Dakar li waa Dakar di dund waa fongola mi di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Touba di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Matam di ko dund mu jël projet bu ñuy wax PACASEN muy appui projet buy dimbale communes yi ñu mën a def infrastructure publique yi nga xam ne moom lañ war am te seen doole matiwu ko ñu mën a bénéficier wu ci loolu boole ko ak li ñuy am ngir mën a def li nga xam ne moom la askan wi soxla loolu mooy PACASEN mu ànd nag ak ay mesures d'accompagnement ak i procédures yoo xam ne képp koo xam ne tegu nga ci yoon te niñ la waxe nga defe ko ni da nga ci bénéfice ba man cee am loo dollee ci sa ba mën a réaliser ay infrastructures publiques yoo xam ne saw askan dana ñu ci mën a dana leen mën a jàppale ci ci lu mel ni ay yoon lu mel ni ay hôpitaux lu mel ni ay dispensaires lu mel ni ay case de santé lu mel ni ay école waaye lu mel ni ay adduction d'eau lu mel ni ay forage loolu nag bu ko président de la république initié xalaat ko tëral ko def ko ba yàlla dogal Touba bokk ci ñi mu nattoon ne ñu ñu yàlla ñuy góorgóorlu di góorgóorlu ba liñ sàtt yiñ tegoon ne ku ko def dañ ci bokk Touba bokk ci a ah, loolu lu am solo la bi ñu ci bokkee nag permettre nañu ñu am loo xam ne mën nañu cee def lu toll nii godoro bii nga xam ne man na huit kilomètres deux cent sept kilomètres deux cent quatre-vingt-trois mètres la woon waaye ci càmbar bi ñu mujj def te bi ñu ko defee ñeenti commune jiitu ci Sénégal te ñeenti commune yooyu Touba bokk ci ndax mën naa ne ci ñi ci jiitu laa bokk maa sama conseil municipal ba tey ñu am huit kilomètres deux cent yoo xam ne war nañ ko mën a goudronner ci biir dëkk bi loolu moo tax directeur technique bi entreprise bi wax na ko léegi ñu jël ay torsion yoo xam ne farata la lool ci dëkk bi farata yi nag bari na ci dëkk bi ni ko sëriñ Mourtala bu sëriñ Cheikh Say waxe waaye comme ndar xëyul sotti te mi nit day tàmbali lu am defe ko li mën a am di def bu defee lii tey bu ëllëgee mu def lii bu yàggee lépp dana rek te loolu yaakaar nañ ko ci président de la république ndax fi ne cëpp ci Sénégal dafa ñu Ila Touba bii nga doy na teraanga doy na teraanga sëpp ci li mu liggéeyal Sëriñ jële ko Thiès indi ko ba Touba dolli ci hôpital bii nga xam ne vingt-huit milliards la pare na ñu ngi koy inauguré waaye dolli ci tali bii nga xam ne mooy tali corniche bi nga xam ne treize kilomètres la ah loolu su ko fi defee jël assainissement treize kilomètres def ci dem ci benn usine mbalit bu dem dix-sept milliards yaakaar naa ne dëkk président de la république li ko war lépp mi ngi ci liggéeyal na dëkk bi bëgg na dëkk bi jox na ko cër jox na Serigne Mountakha ab cër te mi ngi fii jëf te jëf moo ëpp doole wax kon bëgg naa képp ko xam ne yaa ngi fi nga xam ne man de sama xarita ndax li ma ko xaritoon moom mooy lim bëgg dëgg te lim man lépp mi ko ciy def guddi lépp loo xam ne yaakaar na ne njariñ baax na ci dëkk bi dana ko defal boppam lépp luñ ko wax dana ko def nit nag mënul weesu loolu kon sëriñ Bas ñu de la leeral ne xam nga ko sax kilifa yi fi nekk yëpp xam nañ ko waaye danañu wax yoon la ci li alquranul karim di wax li alquran di wax li alquran di wax li wa ma sahilna ila bi ma halilna nit dafay seere li mu xam te yàlla tax kon sëriñ Basiru loolu moo taxoon ma ne danaa la woo ko leeral ci biir liggéey bi xëy na góorloo dana ci ñëw ci kanam tuuti waaye daal ñi ngi am na tali bi tàmbali nañ ko dañoo bëgg a pose première pierre bi entreprise bi tàmbali entreprise bi nag commune bi tey néewul am na cinquante pour cent wala quatre vingt pour cent des des des budget commune di xaalis bi mobilisé nañ tey xaalis bi lépp mi ngi tegu ci trésor entreprise bi bu pare woon suba ñu fay ko avril deux mille vingt deux mois de avril 2022 la tali bi war a pare ñu war a taxawaat fii inauguré ko yal na yàlla dogal ñu fekk ñu fi ci jàmm ba ñu inauguré ko ak jàmm te ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne Touba gépp am na nag lu bare bari lu ñu war a liggéey loo xam ne dafa ànd ak dafa ci ren jii ci ay poste de santé ci ay centre de santé ci ay salle de classe ci addition d'eau ci éclairage public loo xam ne ci l' ensemble des communes de Touba mboolem dëkk yi nga xam ne wër na dëkk bi mi ngi ci biir dëkk bi fas nañ ko fi yéene def ngir ka nit ñi mën a am seen jàmm nit ñi buñ soxla buñ feebaree mën a faju buñ bëggee dem mën a dem buñ bëggee jàng mën a jàng ndax ku nekk xam ne ne dëkk bi laaj na éducation njàng mi laaj na taxaw bu baax a baax ndax bari nay xale tey adduna gone boo ko bëggee dimbale da nga koy jàngloo kon daaray alquranul karim ak école publique yi faw ñu yokk ko euh, ba ak daara ak centre de formation yi ba nga xam ne nit ñi xale yi danañ jàng ñi nga xam ne wéy nañoo jàng ñu formé leen ñu liggéey loolu it président de la république defe naa ne ku nekk gis na centre de formation bi mu fi tàmbali muy jëf ju am solo ngir bëgg xale yi mën a jàng ngir ngir bëgg xale mën a jàng ngir xale bëgg xa ngir ngir bëgg xale yi mën a jàng waaye képp ku ci rëcc ci njàng nga mën a def jàngi liggéey loolu daal mooy li woon danaa ko leeral te man nag dafa am lu ñuy sëriñ Abdoulahad yare muy wax moo jëfay yóbbaale wax waaye di wax du yóbbaale jëf bariwul lu ñu di tàmbali ab liggéey di pose plénière paire lu bari dañuy daan liggéey rek di dem ndax def naa ne juróom-ñaari at yi liggéey nañ fi quatre-vingt-cinq salles de classe ci vingt-six écoles publiques yi nga xam ne moom la commune Touba am te ñu ngi nii di liggéey ñaar fukki salle de classe tey jii tàmbali nañ ko moo nekk en cours muy cent cinq salle de classe def nañ ko ci juróom-ñaari at yi ci commune Touba liggéey na boo demee ci wàllu santé liggéey nañ juróom-ñaari poste de santé yoo xam ne tabax nañ ko équipe ko mi ngi faj fii ñu toll ñu ngi tabax ñaar danañu tàmbali juróomi poste de santé ci weer wii xëy na suñu ministère tutelle suñu ministère tutelle euh, Omar Gueye dana fi ñëw pour pose première pierre bi muy fukki poste de santé ak ñett yoo xam ne danañ ko def ci commune bi ci suñu mandat bi ah def nañ lu mat ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett. yoo xam ne yóbbu nañ fa ndox te actuellement ñu ngi ci fukki quartier ak ñett yi ñuy yóbbu ndox ci différents villages yi ci commune Touba. éclairage public du ma ci wax ndax li Serigne Abdoulaye waxoon lu ne fang jarul wan ku ami bët ku amuti bët jarul wax ma nga ndax boo ko ko waxee du ko gis yaakaar naa ne dëkk bi na nañ loolu nag suñu ko waxee danañu ci sant bu baax a baax a jàmbaar yi nga xam ne. mbooloo lañ mu ànd di liggéeyal Serigne Touba muy Touba ca kanam te Serigne Abibou Mbacké nekk ca bopp bi te ñoom ñëpp ñu ngi fii tey ci base bi mu wane ne liggéeyal Serigne Touba commune bi ak Touba ca kanam ak maa ak ak muqaddimatul xidma ak isbu tarxiya ak ak xudaamul xadim yooyu yëpp dañoo ànd di njaboote ak sëriñ bi di liggéeyel sëriñ Touba benn nit lañ du ñaar ndax ni nul mu toll ni munul toll nen ba romb taalibe sëñ Tuubaa te kenn bu ko la génne ci taalibe sëñ Tuubaa te ñun ñëpp benn lañ ñu ngi fas yéene ànd takku di liggéey ba lépp loo xam ne dëkk bi war na koo am ñu defal ko sëñ Tuubaa ci dëkk bi askan wi jariñoo ko ndax loolu la sëñ Moustapha bëgg loolu la bëgg ñëpp ànd nekk benn di liggéey di ngir ñu am ngërëmal sëñ Tuubaa rek laa amoon lu ma leen di wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne taxaw nga fi muy muy mbooloo yi association yi fi ñëw muy groupement yi fi ñëw muy wëllëre yi fi ñëw muy xarit yi fi ñëw muy cent pour cent bi nga xam ne Abdoulaye lu jiite ko muy groupe jàpp ànd jàppaleen Abdoulaye da waa te ngay jaay aboo jiite leen muy premier groupe muy deuxième groupe muy waa Mataka bi nga xam ne galas nañu fi dem bu ba tey muy l'ensemble des associations yi ci ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm di sant seen Mame Mbaye Niang mi nga xam ne mi ngi ànd ak ñun démb ba léegi ak association Kër Niang donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan monsieur le gouverneur de la région de Diourbel di ko sant ci taxawaay bu rafet di ko yónni ci di ko ci ministre Omar Gueye suñu ministère tital ne ko li suñu xol sedd na yëg nañ taxawaayam bëggoon naa ñëw waaye dafa am ay contraintes yu ko téye waaye bu ñuy def pause ba bu ñuy defaat lancement poste moom ci boppam dana ñëw ànd ko ak administration bi ànd ko ak population Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu